wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim xuddaam altariqati altijaniya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen balwaq di leen ziyaar di ñaan yàlla e, def barkeb alquran walluñu di ñaan yitam la sëriñ Babacar Si daan ñaan radiallahu anhu te mooy dund ci tariqa bi ba dee ci tariqa bi te mooy fa muniyati saaxi faaqat fi tariqatihi wa hiya almaniyatu fiha daaka mamuuni yal nañu ko yàlla defal ñun ñépp gannaaw loolu nag tey dañoo bëgg a ànd ak waa xuddaamu tariqati tijaaniya ci sunu ñaareelu bind ci suuratu namli suuratu namli mi ngi commencé taa siin طاسين آه، بوكتي الحروف المقطعة كم نيكولون وخي دائما نرك حروف مقطعة يبرد نيو وخنا آه، موي ساروي ما نام آه، دفا ملن رك nga indi valise bi tek daldi ubi commencé genné yéré yi manam tosin moy valise bi aya yi ci top nak ak xisas yi yi làmb ci biir taasin la ñuy génnee noonu benn par benn génnee woon nañ bu yonent yàlla Moussa ci bind balee paase tey ñu war a ñëwaat ci valise bi génne beneen boo xam ne ci yonent yàlla Suleymaan lay wax moo tax taasin mooy saar wi maanaam comme niñ ko misaale woon rek mel na rek ñu ne ñu ne Louga Louga arcéere nga fa montagne nga fa sanc ba sidda nga fa sanc ba noora nga fa ah, kër sëriñ Louga nga fa eh, yeneeni yeneeni quartier nga fa wala nga tudd ndar ba pare commencé nag di tudd détails yi ci biir ndar waaw mu ngoog muy taasiin door a commencé nag moo tax seetlukat yi wax ne taaun ñu wax ne suuratu li ci ni ñu toftalee saar yi di toftale goo xam ne tawqiifiya la noonu ñu ko toftalee mu tàmbalee faatiha teg ci baqara ba ba ba ngay egsi li loolu mooy vingt-septième saar mooy ñaar fukkeelu saar ak juróom saar yu commencé taa taa siin taa gi ñu ne seetlu nañ ne ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar la ñëw ci saar wi mu mel ne kon loolu ab junj la boo xam ne du ak tombe am na lu muy junj loo xam ne ku ko xam xam na ko ku ko xamul xamu ko waaye am na lu muy junj ñaareelu araf ba di siin ñu waññi aayay saar wi muy 93 aaya juróom-ñeent fukki ak ñett ñu wàññi xarfu siin ci biir saar wi muy loolu encore ba tey ishaara boobu am am na am na lu muy ishaara mais du du kese kese la muy ishaara nag. mën nañ ne géej la goo xam ne eh, amul tefes waaw amul tefes eh, alquran dafa dafa sakkan kon nag tey ñu ñëw ci ci ñu ubbi valis bi génnee beneen beneen yére masalan ñu ñëw ci yonent yàlla suleymaan alayhi salaam sunu borom wax ni walaqad aataynaa daawuda داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين من ولقد آتينا جخنا جخنا داود يننت يالا داود وسليمان اك جا سليمان جخون لين علما خم خم بانيو لين خم خم وقالا نيو وخ نيوم يونت يالا داوود واخ يونت يالا سليمان واخ واخ لان الحمد لله الحمد لله تانت نيلنا يالا الذي موم ميغا خامني فضلنا مونيو اوبليل على كثير من عباده تي ني بري تي جامم ني مو جوخ ني لو اوب ليم جوخ ني بري بري بري تي جامم نيغا خامني المؤمنين واي گم لاني خمغا يونت يالا داوود ليگيول lu tax yàlla jox ko xam-xam ba naka noonu yonent yàlla suleymaan liggéeyul lu tax yàlla jox ko xam-xam ba kon xam-xam ba leen yàlla jox du xam-xamu téere du xam-xam bu ñuy fàggu mais xam-xam la boo xam ne day neex yàlla ci ngëneelam mu tànn ku ko neex jox ko ko ñoom itam ñu xam ne comme que yàlla moo leen jox xam-xam boo xam ne ñoom xamuñu ko woon sax ba di ko sàkku ñoo xam ne yàlla lenn rek les ko mën a fayee kenn mënu koo fay nag waxin la mooy nga sant ko moom dafa bëgg bu la defalee nga sant ko boo ko santee rek wàccoo ngeen boo ko santul nag xarab nga ko boo ko xarabee rek ngeen am lente moom noonu la kon gis nga kenn ku mën a doon ci yonent yàlla daawuda wala yonent yàlla suleymaan xam-xam ba ko ba leen yàlla jox ak xam-xam ba la mu làmboo ci ay secret ak i maarif ak i mawaahib taxul ñu tiitaru taxul ñu bew waaye ñoom dañoo wax ne yàlla moo ñu ko jox bi maxdi fadlihi moo tax faddala naa mooy ëppaleel nañu man nañ koo firet gën a leel nañu maanaam mu jox ñu lu ëpp lu mu jox ñeneen ñu baree baree baree bari faddala naa ëppaleel nañu ala kasirin ci ñu bari min ibadihi almuminin ca jaamam ya di way gëm mu mel ne nag day bëgg a leeral xam-xam booba naka la demee xam-xam ba nu mu demee mu di la ko nettali nag ci yonent yàlla suleymaan bi mu ko donnee ci yonent yàlla daawuda alayhi salaam su ko defee ci ngay xamee xam-xam ba leen yàlla jox ba ñu koy sant naka la demee mu ne wa waritha suleymaanu daawuda wa qaala yaa ayuha annaasu ullimna mantiqa tayri wa uutina min kulli cheyin inna hada lahuwa alfadlu almubin nee na wa warisa donn na suleymaanu yonentu yàlla suleymaan donn na daawuda donn na baayam daawuda lum donn machine ya déedéet lum lum donn métier ma déedéet mais xam-xam bala donn waaw xam-xam bala donn waaw ndax yonent yi kenn kenn du donn seeni seen tarika naan moo fi bàyyi woon mbub mi dama ko donn naa ko ci moom maa ko jënd moo donn moo fi bàyyi kër gi donn naa ko moo fi bàyyi tool bii donn naa ko déedéet yonente yi kenn du leen donne noonu moo tax abu hurayra radiallahu anhu dafa am bis mu wax ba waa marché ba ne leen yéen a ngi toog foofu di jënd ka jaay te miraasum yonante ba ma nga ñuy séddale fële ca jàkka ja marché bépp fëx wuti jàkka ja ne loolu kay moom ku ne fëx ba ñu demee fekk gaañ a ca jàkka ja di jàngal Qur'an ku ñëw fekk ñuy jàng nga wàññeekuwaat mais Abu Hurayra li may wax lan la ah Abu Hurayra li nga wax lan la mu ne leen ah lii mooy ndonal yonent bi di Alqur'an loolu de lañuy ñuy doon na ci moom lii mooy ndonom de du ay matériel du ay machine ak i gaal de kenn ku ci nekk xam ne ndegete daf leen a cax waaw ah, daf leen a cax yonent yi noonu lañ leen di doon mu ne wa warisa suleymaanu yonent yàlla suleymaan donn na daawuda do baayam ba daawud ba mu ko donnee nag waqaala mu wax taxaddusan bi nicmatillaahi ne yaa ayyuhannaasu éeyéen nit ñi maanaa éeyéen waa banu israil ullim naa maa ngi leen di yëgal ne ullim naa xamal nañ ñu boppam lay wax de xamal nañ ñu mantiqa tayri waxu picc yi waaw waxu picc yi maanaam kàddu picc yi bu picc sabee ma xam li mu wax laal la bu tan sabee mu xam lu mu wax ci sab gi bu mott ne ngoox mu xam lu mu wax dafa tudd dafa tudd picc mais ba ci yidul picc sax ndax dana leer ci kanam ndax dana leer ci kanam ndax xorandoo bu ñu tudd ci kanam moo tax moo tax ñoom ñëpp dafa dégg seen làkk lu picc wax rek mu xam ko mu ne ullim naa xamal nañ ñu mantiqa tayri wax waxi uh, kàdduy picc yi waaw làkku picc yi te picc mu nekk ak làkkam ràmmatu mi ak ndaata keer gi bokkuñu lu ñuy làkk ah petaxum póol mi ak xëti mi bokkuñu lu ñuy làkk xëti mi ci kër gi ak xëti kàmb gi bokkuñu lu ñuy làkk mais bokkul ak tan mi ak maf gi ak caale géeg baaxoñ bi ak ndëbin gi ba tey ku ci nekk saw làkk waaye nee na dégg nañ dégg nañ seen làkk luñ làkk ñun ñu xam ko mu ne woo uuti naa min kulli shay'in ñun daal jox nañ ñu lu ne jox nañ lu ne waxin la jox nañ ñu lu ne maanaam koo xam ne daal yàlla daf koo defala defal a defal moom day day wax maanaam fa amma bi ni'mati wa amma bi ni'mati ko fa xaddis day wax xéewal gi ko yàlla defal waaw moo tax da ngeen gis Cheikh Tidiane bis mu ne ana Mouhamadul Ghali ñu wooyee ko mu ñëw ba Mouhamadul Ghali teew mu ne qadamaaya haataani fawqa raqabati kulli waliyin lillahi taala min ladun aadama ila nafqi fi suur waxu ko woon ngir tiitaru waxu ko woon ngir damu mais daf ko doon wax tahaddusan bi nicmatillahi taala kon loolu aayul yàlla yàlla jox la yàlla jox la loo xam ne ak jagle-jagle la nga taxaw ci mbooloo wax ko loolu bu fekkee danga koy wax ngir sante ko yàlla loolu loolu loolu dara nekku ci baax na waaw bi nee na woon ana nabiyu laa kadib ana ibnu abdil muttalib mais bu fekkee danga koy wax na ngir ngir ngir tiitaru ak bàkku kese-kese loolu bu boobaa jaru ko moo tax yonent yàlla suleymaan li muy wax nii bàkkuwul bàkku taxul mu di ko wax mais daf koy wax ngir sant yàlla mu ne ullim naa xamaleef nañu mantiqa tayri làkku picc yi wa uutii naa te joxeef nañu min kulli shay'in ci lu ne inna haada naka lii daal lahuwa alfadlu mooy ngëneel ga almubiin ga di aji bér lii daal ngëneel gu bér la lii daal ngëneelu yàlla la rek sunu sunu borom di nettali loolu waaw di nettali loolu ba tey di gën a leeral fadlu boobu naka la demee mu ne wa xushira li suleymaana junuuduhu min al jinni wal insi wa tayri fa hum yuuzaun xatta ida ataw ala waadi namli qaalat namlatun yaa ayuha namlu duxulu masaakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuuduhu wahum laa na waxu shira fangeef na maanaam dajaleef na li suleymaana ñeel yonente yàlla suleymaan moo moo joxe ndigal ne nañ ko dajaleel soldat yépp nañ ko dajaleel picc yépp ràmmatu yépp ñëw pool yi ñëw tan ñëw maf ñëw biram paate ñëw baaxañ ñëw xëti ñëw ganaar ñëw ñépp ñëw nit ñëw jinne ñëw mooy ñépp ñëw rek mooy benn buur bi nga xam ne mooy buur bi yilifal lépp gannaawam buur buur buur bu mel ne moom dootul am dootul am te la ko jiitu woon buur melul ne moom moom yonent yàlla Suleymaan ah buur boo xam ne bo bëggee tukki ngelaw li ngay jël tukkee ko da ngay toog fii rek ne Dakar laa bëgg a dem woo ngelaw li mu ñëw yóbbu la boo paree nga nga nga jëlaat ngelaw ñëw gaa yi jël oto di yend ci àll bi yow nga jël ngelaw ñëw gaa yi jël avion mën naa def choc ci yow nga jël ngelaw dem jël ngelaw dem France léegi jël ngelaw ñibbisiwaat loolu loolu yéeme na. fu fu fu or nekk xam nga ko yaay boroom lépp wax jinne yi ñu nuur ci géej gi li nga soxla ñu indil la ko not ñëpp rab yëpp yi ci géej géej yi ci jéere ji jinne yeeg nit ñeeg shayatin yi ñëpp nga not leen nguur gu mel noonu ku ko masa am ku dul yonente yàlla Suleymaan moom rek moo ko masa am bu may tudd buur yi nag xam nga ne boolewuma ci yàlla yàlla moom kooku moom ku dul ku dul moom buuru majaas nga rek waaye buur dëgg-dëgg mooy moom ndax moom la nguur nguuram dul jeex te ku fi am nguur moo la jox nguur nee na waxu shira dajaleef na li suleymaan a ñeel yonente yàlla suleymaan dajaleel nañ ko junuuduhu soldaam sa minal jinni ca ca jinne ya min gi day leeral soldaar sa ñum doon mu ne minal jinni ca jinne ya wal insi ak nit ña wa ak njanaaw yi fahum ñoom yuusauna ñuy xaarante yuusauna mooy eh, nit ñi ñëw ba yegg si taxaw xaar jinne ñëw taxaw xaar benn ñuy xaar weneen xel wala ñuy xaar seeni morom picc yi ñëw taxaw xaar lu ne ñëw ñëw parce que balaa ñoo départ fokk ñëpp daje su ko defee ñu ñëw rek dañuy xaar ñi ñëw taxaw xaar ñii ñëw taxaw xaar di di fekkante ci ci benn jataay loolu mooy fahum ñoom yuzaun ñuy ñuy ñuy xaarante waaw yuqafu awailuhum li talxaqahum awaxiruhum nee na ba ñu xaarantee ba ñépp dajee nag yonent yàlla suleymaan joxe ndigal ne ayo ayo ñu dem nee na ba ñu demee ba yegg ci genn këru xorandoom xam nga sunu borom day nettali xam-xam bi mu joxoon yonante yàlla suleymaan te yonante yàlla suleymaan doon nekk ci baayam daawud alayhi salaam loolu lay nettali moo tax mu di la mu jaarale la ko ci xissa bi waaw mu jaarale la ko ci xissa bi xissa bi mi ngi woon ci valise bi valise bi mooy taasin mu ne la mu ne xata ida ataw ala waadi namli qaalat namlatun yaa ayuha namlu duxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuuduhu wahum laa yashcuruun mu ne xataa ida ataw ba ñu dikk ala waadi namli ci xuru xorondoom ya xur woo xam ne ay xorondoom ko dëkke nee na ba ñu yeggee qaalat namlatun aw xorondoom daal ne qaalat mu daal di wax namlatun aw xorondoom ne yaa ayyuhan namlu eey yéen xorondoom yi udxulu masakinakum duggaat leen ci seen kër yi duggaat leen ci seen pax yi lu tax ndax laa yaxtimannakum laa yaxtimannakum suleymaanu ngir suleymaan du leen du leen du leen dammate duñ duñ leen toj maanaam suleymaan la tudd mu yóbbaale soldat si parce que soldat suleymaan si la jox suleymaan a ngi ñëw de buñ nee suleymaan a ngi ñëw ñam àndal ñépp ci lañ ci lañ bokk waaw laa yaxtimannakum suleymaanu ngir suleymaan yaani li allah ngir suleymaan du leen noote waaye gis nga mu tudd baatu laa yaxtimannakum mu mel ne kon xorondoom dafa am yax ndax xattama li muy tekki mooy dammate na mais xorondoom fi mu toll nii boo ko euh, boo ko bosoon sa baaraam bu baax pour rey ko boo seetloo danga dégg tacc ji tacc joo xam ne li koy def ci moom li taxawaay bi yax am ci doomu aadama la loolu am ci moom moo tax bu soldaar si di jaar ci seen kaw toj googu damm googu ñuy def noonu moo tax mu jëfandikoo baat bi la laa yaxtimannakum suleymaan te comme que baatu wati sa mooy firi toj na te wati sa boo daggee waaw ga wàcc taasiin moo fay des taasiin moo fay des te euh, waaw gi am na beneen ishaara bu muy liggéey ci biir saar wi am na ñu bari ñu koy gëstu di ko wax loolu dangay gis ne kon taasiin mooy saar bi rek loolu ngay gis ndax muwaafaqaat yi moo du ay tombe waaye lu leer la waaw euh, mu ne laa yaxtimannakum ngir du leen faagaagal wala bokk ngir du leen nappaaje waaye boo waxee nappaaje ba tey firéegoo baat bi ndax yaxti man laa yaxti man nakum mooy pour bu buñ jógee ci seen kaw seen seen seen cër yi yi nga xam ne moo composé seen yaram yi bañ mën a dox di dam di damm ndax am na lu jaar ci kaw noonu kawam noonu nga xam ne loolu moo mën a ta moo koy mën a may mu mën a dox loolu bu dammoo dootul mën a dox te buñ jogee ci kawam loolu mooy damm loolu feeg dammuwul day mën a dem buñ nee xorondoom wa dammu na waraf du mën a dégg loolu mais il faut ñu xam xorondoom nu ko yàlla binde ni ko yàlla binde def ci loo xam ne bu doon doomu aadama ne dañ naan lii yax la xam nga boo ne woon tey xorondoom am na yax kenn du ko gëm mais yàlla defal na ko loo xam ne loolu li muy jariñ ci yaramam moog li yax di jariñ ci yaramu doomu aadama ñooyam moom ci moom bu bu bu dammoo ci moom moog ko ab yaxam dammoo yam moo tax mu ne laa yaxtimannakum suleymaanu ngir yonent yàlla suleymaan duñ leen duñ leen damate wa junuuduhu moom ak soldaaram si eh? eh, waxum te fekk ñoom laa na duñ ko bàyyi xel duñ ko yëg maanaam mën nañoo jaar ci seen kaw alak leen te duñ ko yëg foofoot am am taxaw seetlu muy xorondoom wi dafa dafa dafa jàngale foofu ne yonent yàlla suleymaan ku maandu la moom lay jàngale foofu nee na bu doon yonent yàlla Suleymaan dana yëg ne yéen a ngi fi dana wax soldat si ñu jaar yi neneen mais du ñu jaar ci seen kaw waaye yëgu ko kon mën naa jaar ci seen kaw su ko defee yéen ñëpp ngeen faagaagalu moo tax laa yaxtimannakum Suleymaan wa junuuduhu wa hum te ñoom buñ buñ buñ leen di noote laa na duñ ko yëg ne bu doon danañ ko yëg moom danañ leen moytu kon ku maandu la buur day maandu mais buur buy def lu ko neex eh, buñ taxawee foofu léeg ngay dawal sa oto ñëw ba jub foo xam ne xorandoom yi dañ koo def aw yoon boo mënee teggi comme que yow gis nga ko boo mënee teggi teggil ah, loolu la xorandoom yi jàngale fii de nee na yonent yàlla Suleymaan bu bu ñu yëgee du jaar ci suñ kaw mais bu bu ñu yëgul ci suñ kaw lay jaar kon nag yow mi yor oto ñëw ba jub këru xorondoom gi wala nga ñëw ba jub eh, nuñ koy waxeeti eh, yoonu xorondoom wi ah boo manee boo manee wëri foo dul jaare ci seen kaw nga nga def ko yow mi yor moto noonu yow mi dox say tànk itam noonu waaw ah. bu njëkk ba xale yi dañ daan wax kenn du jaar du ci jaar yoon wi da nga koy jéggi te ku koy jéggi da ngay wax <laughs> xorondoom ndoomal ma ci rakki mbaam aw fi dee sama rakk aw fi dund loolu lañ daan wax bi ñuy xale su ko defee daal daal di jéggi daal di jéggi yoonu xorondoom bi waaye ba tey baax na sax moo gën noote noote leen laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduhu wa hum laa yash'uruun xorondoom bi ci boppam annoncé na ne yonent yàlla sulaymaan ku baax la ku maandu la waaye ba mu waxee loolu rek ndeke yonent yàlla sulaymaan dégg na li xorondoom bi wax seetal loolu seetal xorondoom kàddu xorondoom nan la war a mën a mel xanaa xorondoom bu doon dégg nga làkk xorondoom sax buy wax waroo ko mën a dégg maanaam bu fekkee dégg dégg nga làkk yi ba bu waxee nga xam nga xam ko mais nga dégg son bi ci sa nopp wala boog da lu ñuy xamee ci nopp su fekkee xorondoom junj lay waxee itam nu nu mën a gisee junj bi loolu daal kéemtaan la ndax xorondoom loo xam ne koo xam ne bu doon daw sax doo dégg tànk yi di dal ci suuf tànk yi ni muy dalee doo ko dégg bu doon lekk sax doo dégg ni muy lekke li muy lekk yow mu wax rek nga daal di xam lu mu wax la dafa wax ji dafa dugg ci sa nopp ba tax nga xam ko walla danga koo gis muy misaal ba tax surtout ci ay xorandoom yu bari wenn di wax nga dégg kenn kiy wax loolu loolu loolu doy na waar loolu doy na waar moo tax yàlla ku yéeme la li sëriñ Cheikh naan nañ ko bàyyi mu nekk yàlla loolu mooy dëgg nañ ko bàyyi mu nekk yàlla nee na yonent yàlla suleymaan dégg wax ja fa tabassama daaxikan min qawliha wa qala rabbi awzicni an ashkura nicmataka allati ancamta calaya wa cala walidaya wa an acmala saalixan tardaahu wa adxilni birahmatika fi cibaadika alsaalixin nee na fa tabassama mu daal di muuñ mu daal di muuñ moom moom suleymaan daaxikan di ree mu daldi muuñ ba ba mujj di ree faf min qawliha ngir waxi xorondoom wi wa qaala mu daldi wax moom yonent yàlla suleymaan ne rabbi yow sama boroom awzi'ni maa ngi lay ñaan nga sédde ma nga sedd ma walla bokk walla bokk nga nga may ma an ashkura nicmataka ma mën a sant sa xéewal gi Euh, wallahi am na ñoo xam ne bu doon ñooma foofu lañuy ñuy bewee fa la ñuy yàqoo fa la ñu commencé bew waaye fi nga yëgi yëgi affaire bi nga daal di delloo lépp ci yàlla ci ci tàng-tàng ba waaw ci tàng-tàng ba nga delloo ko ci yàlla loolu am solo la loolu am solo la mi ngi jàngale parce que yàlla lépp ci moom lay dellu loo mën di am rek delloo ko ci moom mu ne fa sama mu daal di muuñ daaxikan di ree min qawliha ngir waxam ja wa qaala mu daal di wax moom suleymaan ne rabbi yow sama boroom awzi'ni maa ngi lay ñaan nga may ma an ashkura ma mën a sant ni'mataka sa xéewal gi ndax bari na ko yàlla defal xéewal te mënta sant yàlla mënta xéewal goo xam yaa ngi nekk moom fukki at ba léegi taxawagoo sant yàlla ma mën a sant sa xéewal gi allati sa xéewal gii nga xam ne am an'amta alayya xéewaleel nga ma ko wa ala ya te xéewale ko itam samay ñaari wayjur maa ngi lay ñaan nga may ma loolu waaye fo loolu wa ala walidayya itam dafay jara seet ndax ñaari way juróom way juróom bu jigéen gan xéewal la am dégg nii mën naa bari mais jur doom ju ñuy wax yonent yàlla Suleymaan mu nekk buuru àdduna bi yëpp nekk yonent encore loolu xéewal la loolu jar naa sant yàlla loolu xéewal la yonent yàlla daawuda moom itam loolu xéewal la ci moom mais xam-xam bi yàlla defoon ci moom te yonent yàlla suleymaan donn ko ci moom te ci xam-xam boobu lay xame waxu xorondoom yeeg picc yi kooku xéewal la mu nekkoon xéewal gi nga ma defal defal ka samay ñaari wayjur maa ngi lay ñaan nga may ma ma di ko sant wa an amala salihan nga may ma itam may jëf lu baax lu jara ñaan la laajal sa bopp est ce que mas ngaa ñaan yàlla loolu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma may def katu lu baax moom kay yàlla may ma lii yàlla may ak ba ba ci sax yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci dugg safara maa ngi lay ñaan nga may ma dugg aljanna mais ñaanagoo ko mu may la ngay def lu baax ndax aljanna def lu baax sabab la ci la fa yóbbu nit kon wa an amala saalihan maa ngi lay ñaan nga may ma itam may def lu baax lu baax loo xam ne tardaahu da nga koy gërëm yow waaw kay wa adxil nii bi rahmatika te maa ngi lay ñaan nga dugal ma ci sa yërmande ga fi ibadika salihina fi ibadika salihina ca sa jaam ñu baax ña maa ngi lay ñaan nga boole ma foofu ndax gis nga mbir mi dafa dafa dafa dafa am solo ndax gis nga yonent yàlla suleymaan gis nga yàlla dana defa dana defal nit xéewal xéewal nga xañ ka lii lépp li fi yonent yàlla suleymaan ñaan lépp xéewal nga xañ ko ko waaw yàlla dana defal nit xéewal nit ke xewal ga fàbbi ko ba santul yàlla ca xewal ga defatul lu bax ca xewal ga ñaanatul be maanaam dafa nek ca xewal ga rek nek ca rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon nicmataani maghbunun fihima nas as-sihhat wal faragh yonent bi neena won sallallahu alayhi wa sallam ñaari xewal a ngi yoo nax nañ ci ñu bari ci nit ñi maanaam nit ñu bari naxu nañ ci naxu nañ ci ban ak ban mu ne wér-gu-yaram ak lan mu ne ak am jot nit dana am wér-gu-yaram ba wér-gu-yaram goo xam ne dana dem ba xëy tëdd feebar te bu fàttali ko mësul a sant yàlla ci wér gi ko yàlla joxoon du bis bu nekk yaa ngi gis ku ku jabeet te yow jabeetoo est-ce que santagun nga yàlla ci aafiya boobu mu la defal bés bu nekk yaa ngi gis koo xam ne xëy na ay bëtam dafa muuru te yow say bët muuruwul est-ce que mas ngaa fàttaliku foo sant yàlla ci bët yu leer yim la jox mais yow mi say bët muuru itam fàttalikul est-ce que ba say bët di leer ndax mas ngaa ndax mas ngaa euh, fàttaliku foo foo sant yàlla ci loolu gannaaw bu wér jàllee nag mu ñu fi des est-ce que yaa ngi mën kon lu mat a bàyyi xel la maanaam sunu boroom mi ngi ñuy nettali e, ku ñuy wax yonent yàlla Suleymaan mais ci biir nettali bi alquran mi ngi joxe ay ay leçon yu am solo yoo xam ne bëggul nga jàng xissa bi di ko nettali di dem mais dafa bëgg nga dund ko moo tax nettaliwul lu weesu li muy waxul ak kenn yow yow lay waxal alquran boo ko jàngee daal di jël wax ji rek yow doo ci moom dara lu lépp passé bu lépp passé yow doo ko jariñoo ndax yow passé goo lépp boo ko defee passé doo ko jariñoo waaw kon euh, foofu la ñuy taxawee ba ëllëg insha allahu ñu continuer yonent yàlla Suleymaan ba xam xissaam euh, bi fan lay mujj kon daal tey ubbi nañ valise bi génnee nañ ci benn jasineer jasineer bi ñu génnee mooy xissa yonent yàlla Suleymaan Euh, bëlee passé jasineer ba njëkkoon a génnee mooy xissa yonente yàlla Muusa alayhi salaam nga gis na mu ko joxee na mu rafete na mu ko exposé na mu rafete mais xoolal itam bu yonent yàlla Suleymaan bi nii mu ko exposé ni mu rafete ak boo rawatina boo xamee lii ñëw ci kanam moo tax subhanahu wa taala jalla jalaaluhu nee na kon boog ñu ñëw ci njalbeenu bind bi nee na wala qad aatay naa joxoon nañ daawuda yonent yàlla daawud wa suleymaana ak yonent yàlla suleymaana ilman xam-xam wa qaala ñu daal di wax alhamdulillahi cant ñel na yàlla alladi moom mi nga xam ne faddala naa ëppaleel nañu ala kathirin ci ñu bari min ibaadihi ci jaamam ñi almuminina yi di way gëm wa warisa donn na suleymaanu yonent yàlla suleymaan daawuda baayam yonentu yàlla daawud wa qaala mu daal di wax moom suleymaan ne yaa ayuha naasu ee nit ñi ullim xamaleef nañu mantiqa tayri làkku picc yi wa uutii naa te joxeef nañu min kulli shayin ci lu ne inna haada lii daal lahuwa alfadlu mooy ak ngëneel almubiin gu di aji bér lahuwa alfadlu mooy ngëneel ga almubiinu ga di aji bér ga wa xushira fangeef na li suleymaan a ñeel yonent yàlla suleymaan waxu shira dajaleef na li suleymaan ñeel yonent yàlla suleymaan junuuduhu soldaaram sa minal jinni ca jinne ya wal insi ak nit ña wa ak picc ya fahum ñoom yuusauna ñuy xaarante xataa ida ataw ba ñu déparé ba dikk ala waadi namli ca xuru xorondoom wa qaalat wax na namlatun aw xorondoom ne yaa ayyuhan namlu ee yéen xorondoom yi udxulu masakinakum duggaat leen ci seen néeg yi dugaat leen ci seen dëkkuwaay yi laa yaxtimannakum ngir du leen tojate du leen damate suleymaanu yonente yàlla suleymaan wa junuuduhu ak soldaam sa waxum ñoom laa na duñ ko yëg buñ koy def duñ ko yëg fa sama mu daal di muuñ moom yonente yàlla suleymaan daahikan di ree min qawlihaa ngir waxi e, xorandoom bi wa qaala mu daal di wax rabbi yow sama borom awzicni yàlla nag ma may an ashkura nicmataka ma sant sa xéewal may sant sa xéewal alladi gi nga xam ne an'amta alayya xéewal nga ko ci man wa ala walidayya ko ci samay ñaari wayjur wa an amala saalihan ak itam nga may ma may def lu baax tardaahu nga di ko gërëm wa adxil nii maa ngi lay ñaan nga dugal ma bi rahmatika ci sa yërmande fi ibadika saalihin ca sa jaam ñu baax ña bi ñu koy tafsir Euh, am nañ fi tuuti sabqu lisaan mooy dañoo wax ne wa adxil nii dugal ñu bi raxmatika ci sa yërmande gi déedéet maanaam wa adxil nii dugal ma fii ibadika saalihina maa ngi lay ñaan nga dugal ma fii ibadika saalihina ca sa jaam ñu baax ña bi raxmatika ci sa yërmande waaw kay loolu mooy loolu mooy prix mu jub mi loolu mooy prix mu jub mi mais ni ñu ko waxee woon léegi dafa mel ne dafa mel ne dafa mel ne am na njuumte ni ñu ko waxee woon dafa mel ne am na njuumte mu ne waaw foofu la taxawee kon bu ëllëgee ñu commencé wa tafaqada tayra fa qaala ma ma lii laa ara alhudhuda am kaana min alghaibin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب